période fête day am ay matuwaay yu am solo yu ñu war a jël ci loolu euh, dañ koy tënk ci ñett am na yi nga xamante ni dañ ko war a jël balaa fête bi di ñëw am yoo xamante ni jour fête bi la ak après fête ci balaa bi di ñëw yi gënoon am solo yi nga xamante ne mënoon nañ ko def mooy bërëbu julleekaay yi nga xamante ne fa la ñuy demee it fa la ñuy jullee ñu setal ko gën ko taaral gën ko yanjal ba nit ñi am du ñu am jafe-jafe pour mën fa jullee Euh, su weesoo loolu aussi mooy comme période de fête la nit ñi dañuy dem ci marché yi lu bëri loolu aussi mu am dispositif bu am solo bi nga xamante ne benn travail de nuit bi nga xamante ne ñu ngi koy def parce que weeru koor aussi dafa naqaree liggéey bëccëg donc équipe yi guddi gi lañ daan gën a liggéey jouru fête bi également sentir nañ ni que population yi ñëpp a ngi seen kër donc ordure yi day yokk ci loolu ñu def benn dispositif boo xamante ne ñetti junni agent mobilisé nañ ko soo xoolee ci biir ndakaaru ñaari junni mobilisé nañ ko pour que cet boobu ñu war ko mën a jël en compte euh, suñu jógee ci bésu fête bi aussi lu romb fête bi nga xamante ne dañuy def benn dispositif boo xamante ne moo ñuy permettre ñuy suivre parce que ba tey mbalit yi day yokk